ci nawetaan pavage yi noonu la ko defee euh, mu di ay lal yu nga xam ne daf ko jébbal poste de santé yi district yi nekk si commune bu Rufisque waaye sax poste de santé yi nekk si commune ba ngir jàppale leen ci xeex bi rawatina ay communes yoon ndax dafa gis ne ñooñee dañu ko yittewoo jamono ji nga xam ne mbas mi sonal na kër docteur Abdoulaye faal ñu teew lay kàddoom L'État ne peut pas tout faire l'État ne peut pas tout faire à chaque fois bu ñu mënee jàppale état pour euh, li doxal réew mi je vois que vraiment waruñu si mën a xaar état nañ ko def te ànd si ak Pastef ak farlu Covid bi wax na ko léegi moo fi ne ñoom dañu sonn dañu jaaxle parce que vraiment amuñu matériel boo xamante ni nii mën nañu matale seen liggéey à cent pour cent donc bu ñu mënee indi suñu loxo indi suñu xam-xam indi suñu xalaat pour jàppale leen man boog du ma hésité. non non man au début dama prévoiroon yóbbu ko. dans les postes de santé de Rufisque Ouest euh, jokkul xeer jokkul euh, wagg ak HLM mais xam nga district bi moo leen yilif ñoom ñëpp te jaaduwul ngay yem foofu te doo ñëw seet si district bi voilà Birahim genre geste yu ni mel de mënees nañu ko saluer surtout fii nga xam ne euh, mbas mi fii la toll hôpitaux yi di am ay jafe-jafe ci wàllu ay laal. mooy li may wax nii mën nañu am espoir ci sénégalais. xam nga lan mooy am espoir ci sénégalais nga gis benn doomu réewum Sénégal yore alalam ne ni duma ma ko yemale ci jënd kër oto. Mm-hmm. Euh, tabax ak yu ni mel waaye dama ciy jàppale samay euh, nawle ak ñoo xamee ni soxla nañu ko. Mm-hmm. li mu def lu ñuy rafetlu la. gis nga bu doon dañ ko multiplier keneen ak keneen def ko. Euh, maam bay yore tuuti alalam ne ni même bu dee benn moto pompe naa ko jënd pour ñi nekk ci benn gox am ci jafe-jafe gis nañu fi ku ci mel ni Bara Gaye fële ca Touba di mbokk ci kër gi daanaka ndax mhm. euh, lu ñu lu ñu seq ak euh, président euh, groupe des médias mais bi ñu gisee mbënd bi fële ca Touba xaarul état wala maire Touba wala keneen dafa jëkkati alalam jënd ci ay motopom pour yóbbu ko foofu pour mën a jàppale au moins lu mu néew néew néew benn wala ñaari kër yoo xam ne mën nañ génn ci ndox mi sénégalais mën nañu am wóolu ci sénégalais mhm. nañu dindi politique mhm. teg ko fële doxal li ñu naan humanité. Mhm. ñu ne kii humanité moo tax mu def lenn xoolu ci poste politique xoolu ci luñ koy fay ci wàllu politique xoolu ci waaw góor lu mu ciy xool mooy def te euh, yàlla rek tax diggante nit ak morom jub tam gis nañ euh, Ahmed Aïdara bu Géejawaay laa bokk def na ko tout ma euh, fait dem si kër docteur jàppale leen mhm. bugaan ngay daan yóbbu ay moto pomp fee nga xam ne mooy ci banlieue bi je pense que loolu daal jar na rafetlu mais loolu moo loolu moo am solo def ci wàllu social mais xam nga problème bi li ci li ci bon mhm. mooy da ngay nekk fii ci biir réew mi di ko defee ci réew mi mu jig la mais laajal moodu moodu yi nga xam ne bëgg nañu seen diiwaan bëgg dimbali seen diiwaan ci ay matériel bu ñu indee ay lal wala ay ambulance bu bëgg maire bi signé benn këyit pour ñu mën koo génne te duñu fay de douane ma ak yooyu maire bi day bañ am na am na am na am na euh, jàmm gën jàmm gën problème boobu am na fa mm-hmm. am na yeneen i localité yoo xam ne am na fa te loolu mooy gravité bi faaw ñu interpeller ci maire yi loolu du seen sañ-sañ doomu dëkk ba mais am na mhm. droit politique lan moo tax boo nekkee maire yow doo mën a supporter opposant bu dëkkandoo ak yow ci dëkk bi mm. mel ni yow localité bi yow danga nga ko donn mm. loolu benn la ñaare bi ci des itam ñoom doomu Sénégal yi nga xam ni dañuy indi yenn saa ay ambulance mm. ak ay ndimbal ak ay don jële ko bitim réew di ko jox ay sénégalais fii na nekk na fekk mu nekk seen jikko mm-hmm. bañ ko lal ci wàllu politique xam nga la moo tax dafa am benn maire boo xam bokk na tey ci maire yu ñu gën a critiquer seen ay localité muy maire Mbacké mhm. bokk na ci maire yu ñu gën a critiquer amul benn journaliste Birahim mii nga xam ñoo bokk génération mun na